coronavirus la ñuy waxtaanee naka la ñuy def euh, ba xam comprendre ko waaye it fexe ba Sénégal mucc ci ndax ñi ngi naan Chine Chine Chine waaye commencé na law ci àddina bi bu ñu demee France am na cas déclaré bu ñu demee Italie am na ay cas déclaré boo demee Philippines am na cas déclaré Indonésie euh, Singapour jégalu Indonésie euh, non Singapour laa mujj dégg ak yeneen i dëkk. Euh, ñun nag yàlla def na am nañ fukk ak ñett euh, doomu Sénégal yu des Wuhan ci euh, épicentre bi maanaam fa fa fa feebar bi feeñee fa mu soqee ko ñu leen di nemmeeku di leen massawu ak di ñaan yàlla musal leen si ngir waxtaanee loolu nag directeur prévention ci ministère de la santé su dee damay wolofal fàggu defe naa. ci ministère ba yow yaa ko yor docteur Mamadou Ndiaye ñi ngi lay nuyu. Abdoulaye Der mhm. ñëpp ñi nekk ci plateau bi mhm. les nga xam ne Sénégal bi yëpp moo koy seetaan jërëjëf bi yëpp mën nañ ko wax jërëjëf jërëjëf euh, alors docteur li ñu lay njëkk laaj rek mooy coronavirus boobu bu ñu defee bilan léegi nii su ma juumul ñu ngi ci 1367 euh, ñoo xam ni faatu nañ ci mille cas déclarés aussi ca Chine ba nga xam ni fala feeñee Sénégal nu mu war a def ba ba mucc ci musique ba googu. jërëjëf euh, d'abord chiffres yi moom day changer. 1381 mhm. cas. Mhm. su la neexee ñu ne mooy chiffre officiel yu génn dem ci 67 la mu voilà yokkuwaat donc day varier loolu mhm. moom euh, jarul ñu ci kii. te aussi mun nañu wax ne que 25 pays maanaam ño Chine ak 24 pays la woon. mais mun nañu wax ne cinq pays sax am nañ ko léegi vingt six pays mun na peut-être information bi resta à vérifier. Mm-hmm. journalistes ñoo gën a xarañ ci information. Mm-hmm. mais ban vingt cinquième li ma am information mm-hmm. Afrique Égypte on me dit que selon l'information reste à confirmer. que am nañu benn cas bu ñu identifié. reste à savoir fan la jóge ak lenn mais Sénégal nag fii moom ba Sénégal non. Sénégal amuñu benn cas. en tout cas ñu ngi koy surveiller nag. peut-être que dinañ ci ñëwaat. mais mucc ci moom. Euh, nga baal ma ñett yi ñuy dégg Thiès. Euh, non loolu du noonu. Mhm. du loolu exactement li am Sénégal ñun ci ay pexe yi. nga mhm. xam ne dañ koo lal. Mhm. mooy ko coronavirus nee nga naka la ñuy def ba mucc. puisque feebar bi fi mu soxeeku mooy Chine. oui réew moomu jël na ay mesures déjà. li ñu war a njëkk a def mooy que ñun naka la ñuy def ba xàmmee feebar bi d'abord. mooy agent de santé ñu mun koo xàmmee. mais aussi ñu jéem a seet ndax mun nañu fatt porte d'entrée yi mooy mm-hmm. maanaam bunt yu ñu taxaw ci bunt yi pour jéem pour jéem a kar feebar bi mm-hmm. jafe na mais loolu la ñu jéem a def pour l'instant mooy porte d'entrée aérienne maritime ak terrestre mm-hmm. mooy aéroport port terre bi moom fu nekk la nit ñi di jógee yaa xam ne ay chinois lañ yaa xam ne ay sénégalais lañ mais li ci ëpp solo mooy soo defee loolu mais aussi nga mu mel ni feebar bi su dee su ñëw na su ñëwee fii yow mun nga koo mhm. dékku mhm. mooy la ma nga jéem a def structure sanitaire yi nga jéem a leen a def à niveau mhm. mooy maanaam dafa mel ni rek criminel bu am ci dëkk wala mu def jéye Ndakaaru wala feneen nga jël portrait robot maanaam photo bi nga yónnee ko ci commissariat yi nga xam ne saa bu fa duggee ñu xàmmee ko agent de santé yi yónnee nañ leen photo feebar bi mhm. maanaam naka lay anamu mhm. ak aussi dina am nag ay li nga xam ne interrogatoire bi nga xam ne soo ko defee nga saytu nit ki mhm. pour l'instant mun nañu wax ne que nit ki moom balaa ñuy wax ne que am na ko walla amu ko d'abord da ngay seet ndax am na mandarga yi est-ce que tukki woon na ci réew yooyu lu mel ni Chine walla réew mi nga xam ne déclaré na ay cas ci loolu nag ñu jéem a aussi def ay li nga xam ne ay analyse yi nga xam ne Institut Pasteur loolu moom pour rek tënkaat affaire bi ñëwaat ci affaire bi mooy que d'abord ñu def formation agent de santé pour ñu informer leen mhm. ñu jël institut Pasteur bi nga xam ne moom mooy saytu feebar bi war koo confirmer ci Afrique dañ ko ci Afrique mun nañu wax ne ñaari réew mooy Afrique du Sud ak euh, Dakar institut Pasteur ñaari yooyu dañ koy confirmer mais également jël hôpitaux yi nga xam ne hôpitaux yépp ñu def leen mise à niveau mhm. pour l'instant ñeenti hôpital la ñu tànnagum pour que au moins seen jumtukaay yi gën a. yan yan hôpital la. lu mel ni Dantec. lu mhm. mel ni principal. Mhm. hôpital de Fann maladie infectieuse. ak hôpital Idrissa Pouye. Mhm. ñu jël a à niveau. ñooñu tamit ñu def defaru déjà xam ne loolu la léegi nag aéroport port ak port d'entrée yi control sanitaire aux frontières maritimes aériennes. bépp avion buy ñëw actuellement contrôle sanitaire aux frontières am na manifeste balaa nit kii di dugg. Mhm. xam nañu nit ñi fan lañ jóge ñu jóge Chine ak leneen am nañ suñ ko amee directement jox ko contrôle sanitaire aux frontières. Mhm. su ñëwee am na ay caméra thermique ñu saytu ñooñu su dee dañoo am euh, ku am fièvre moom maanaam yaram bu tàng ak mandarga yi dañu lay isole def li ci war. ñeneen ñi nga xam ne dañoo jóge foofu mais amuñu feebar bi dañ leen di ku ci nekk jël sa tur say coordonnées yépp yaa xam ne ndakaaru nga jëm wala Thiès wala feneen ñu yónnee ko directement ñun am nañu information yi ñu yónnee ko directement médecin yooyu ñu commencé di leen suivre cas pendant quatorze jours au moins. bu ñu toll ni cent quatre-vingt-deux personnes. Hmm. ñu ngi ñu ngi leen di suivre feebaruñu ne attention. dañoo jóge foofu mais ñu ne leen waxtaan nañ ak ñoom que ci fukki fan ak hmm. ñeent yi lépp lu la dal war nga signalé wu ci ñun. Mhm. te aussi dañ lay téléphoné bés bu nekk seet ndax yëgoo dara ci sa yaram mhm. jarul nag ñuy tiit parce que feebaruñu mais dañuy wax ne rek dañ dañ koy say mhm. xam nga docteur jamono réseaux sociaux lañ nekk dafa am solo dama man dégg naa ci làmmiñu le médecin chef euh, région Thiès El Hadj Malick Ndiaye il a bien expliqué mais xëy na ci mbind mi la ñenn ñi juum ndax dañ ci réseaux sociaux yi dafa am ñu nekk diagnostiqué xam nga bu boobaa leneen la moo tax ma laaj la loolu pour mu pour mu leer rek mais man médecin district. Euh, région médecin région bi déggal naa ko sam bopp li mu wax ak loolu effectivement wute na alors docteur Ngok su amee laaj ñu ko war a jébbal. en fait man damay kiiwaat di ma <laughs> di ma daanee sànq sa waay bañ ko dañuy. parfois boo sësee da ngay dellu si yàlla. waaw kan moo bañ lan. ah boo euh, boo sësee da ngay dellu si yàlla. Ah, mais bul ne bañ ñoo tam Papis. non pas bañ genre bon tu t'es opposé à. Ah, non xam nga dañuy Wuhan. Hmm. ñi ñuy waxtaanee kenn ci ñoom a ngi nii. nañ dem nettali ci làmmiñu boromam ñu dem ba <laughs> Chine. Cheikh Mbacké Amar euh, maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum. waaleykum salaam rahmatulah. ñu ngi lay nuyu di la ziar. waaw maa ngi leen di ziar di maa ngi jël nuyoo di ko jébal Sénégalais yëpp. Mhm. di jël nuyoo di ko tàmbalee ci kilifa diine ak ci sa aada yëpp. Mhm. di ñaan seen si di waxtaan yàgg si déwén. Mhm. bëggoon na ñëw rek ci feebar bi nii ak suñu situation bi ñu nekkee fii. Mm, di rappeler rek ni feebar bi feeñ na fi depuis janvier. mais dund na ak moom ba ci vingt trois janvier ci la ñu doog a mettre en quarantaine mhm. mettre en quarantaine nag boo ko dee dégg mooy dañoo tëj dëkk bi ñu nekkoon ci biir mënatuñoo génn ñu nekkoon ci biir mënatuñoo dugg mhm. ci lañ jël moyen de transport yi maanaam lépp lu jëm ci oto commerce bi lépp ñu tëj ko ngir man a contenir malaadi bi ndax maladie bi li ci gën a garaaw mooy contamination bi mooy dafa gaaw mhm. ñun Sénégal yi nekk fii tamit loolu bi mu amee contacté nañ suñu autorité yi nga war a yëg ñu tàmbale ko suñu ambassadeur bi nekk fii mm-hmm. biñ ko contacté tamit moom def na ci li man euh, du jóg ci ba léegi nii fi ñu nemmeeku di laaj lu ñu manqué ak lu ñu mënul te moom tamit euh, jotali la ko autorité yi nga xam ne ñoo nekk réew ma tàmbalee ko ci euh, directeur des Sénégal de l'extérieur ak ministère des affaires ci loolu tamit ñun tamit ñoom tamit doon nañ jokkoo ak ñun di ñu laaj lan lañ bëgg. ñun ñun leen li bëgg mooy bu ñu mënee jëlee ci dëkk bi yóbbuñ ci dëkk boo xam ne moo ëpp sécurité. Hmm. lii jóge fii ñu indiwaat ñu wala ñu yóbbu ñu Sénégal. ba mbir yi sottiwaat ñu de ñu ñëwaat ndax gis nañu suñu moroom it naataangoo di ko def. Hmm. ci loolu ñu ne ñun tam ñoom tamit ñu ne ñu ngi dox ci loolu. doon nañu jokkoo ak monsieur Sarr Moïse Sarr doon nañ jokkoo ak euh, monsieur Amadou François Tey doon nañ jokkoo moom ñoom ñëpp ñu doon dalal suñu xel ci loolu. ba parent yi tamit daal di dugg ci ñoom tamit loolu dem nañ ba gis ñetti ministre yëpp muy ministre ministre de la santé. Hmm. ministre d'État Moïse Sarr ak ministre des affaires étrangères. suñ demee tamit benn question rek lañ leen tegaloon muy à quand et comment pour le rapatriement maanaam kañ ak ci nan lañ ñuy mën a rapatrier ndax euh, suñu parents yi tamit avant ñoo dem bind nañ benn lettre presse jox ko président ñu bind euh, tamit beneen lettre jébbal ko presse bi bi ñuy dem tamit defoon nañ début ci ay euh, société privée xool ba xam nan lañ mën a def ba rapatrier ñi laaj nañ ay docteurs yoo xam ne wax wax nañ leen ni am nañ quinze chambres yu ñu mën a accueillir te ñun treize lañ ba quatorze tey jii sax. Mhm. ci loolu tamit ministre euh, yi waxtaan na ak ñoom te ndax ministre des affaires étrangères am na ay information yoo xam ne dañ ko jëlee ci gouvernement wax leen ni dañoo dugg ci phase boo xam ne nii. phase la boo xam ne bu crucial la boo xam ne ni dañoo war a jël nit ñi nga xam ne dañoo infecté ak ñi nga xam ne dañoo supposé infecté ñu séparé leen maanaam xaajale leen mhm. ci phase boobu bi nga xam ne bi ñu ci bi nga xam ne ñoom jàpp nañ ni bu rombee dinañ mën a maîtriser feebar bi mhm. ci loolu nag ñun ci instant boobu noonu rapatriement mun da nekk ci jamono ji xanaa jamono ji bu weesoo phase bi bu wujjee war nañoo mën a rapatrier moom mhm. ci gàttal daal mooy ministre yooyu yëpp kenn ñoom ñëpp euh, exclure ñu rapatriement waaye dañ ne rapatriement bi ci ban jamono lay nekk. Hmm. ndax xaalis bi ci la waaye tamit dafa am ay ay moment ak yeneen yoo xam ne ne ko loolu tamit bàyyi nañ ci suñu parents suñu bi jógee tamit ñoom tamit dem nañ ci ambassadeur bi nga xam ne moo nekk euh, Sénégal ambassadeur chinois hmm. wax nañ ko situation yi ni ko ñu dañoo bëgg Sénégal yi nekk foofu ngeen defal leen assistance boo xam ne nii dinañ man a dund ci jàmm ndax dëkk boo xam ne dafa am pénurie ñu am ay son yoo xam ne xaw a spécial la. Mhm. Euh, moom tamit nangul na leen ko nee na leen dina ci def ndax pas plus tard que hier étudiant bu nekk fii rek am na ko la woo xool ba xam ci loo nekk. Mhm. nee ko tamit mais ambassadeur bi tamit wax na leen di leen chaque ay ay fan yu jot ñu ñëw ko xool suivi def compte rendu bi. Euh, ministre d'affaires euh, ministre d'État tamit def na benn service psycho psychosocial pour jéem a woo étudiants yi dalal seen xel yëpp daal foofu daal lañ tollagul ci ci ci maladie bi. te mhm. tamit bëggoon a passé benn message ci sénégalais yi. ayca bismillah vraiment ñun waaw ñun ñu toog fii daal vraiment ñu ngi gis sénégalais ko métti loo liñ ñu ko yëgee. Mhm. ñii di ci def seen ñàkk ñii di ci def seen xalaat ñii di ñu sànni ay ñaan. loolu lépp daal ñu ngi koy yëg di di dalal yi nag ñu ngi ci jàmm kenn feebaru ci kenn amu ci lu koy metti te condition bi ñu dund fii tamit suñuy moroom lañ koy dundal chinois yi tamit noonu lañ koy dundal amul benn discrimination bu fi am. Hmm. loolu tax lañ bëggoon a dalal xel yi képp nag muy bàyyi di maam di mag di rakk di nijaay hmm. képp lépp loo yéene rek xalaat bu rafet ñaan bët ñu si biir ak métti lu boo ko métti rek vraiment ñu ngi leen ciy jaajëfal bu baax. ndax situation bi xam naa ni. Hmm. ñun ñi métti na ci ñun waaye ñun ñoo war a gën a dalal seen xel. te ñaan Sénégal mu ji Sénégal am jàmm Sénégal am jàmm feebar bi suñu borom indiwoon. ñun daal nangu nañu dogal la balaa nga ko wàcc suñu borom dogal yàlla na ko yóbbuwaat jàmm salaam. amiin mm, amiin loolu daal lañ amoon kàddu yoo xam ne bëggoon nañu ko yee a dalal xel yi daal. jërëjëf a jërëjëf mm. jërëjëf jërëjëf Cheikh ñi ngi lay nuyu di la ñaanal donc ñaanal sénégalais yi yëpp waaye di ñaanal ñëpp ñi nga xam ne ñi ngi yeewoo Wuhan di yeewoo Chine di yeewoo ci àddina bi yàlla musal leen ci euh, feebar